tay bu état bi porté won plainte bu plainte mon contre le président de l'assemblée mon mom est responsable bi parce que c'est lui le président de l'assemblée mm-hmm. Lui, mon moo ko distribué mon moo édité parce que mom moy le président mom moy chef administration assemblée mm-hmm. gis nga sur la base de ce document là mm-hmm. nga xamni ne ñoko distribuer distribué député députés, porté won plainte suba mom nek en difficulté parce que député yi ñun ce sont les pouvoirs du président mais il mën na parce que c'est pire que de la haute trahison moom le président de l'Assemblée. ah moom moo ko édité document bi ça existe du loo xamante dañ ko inventé ñoom bi député yi ñëwee distribué à tous les députés Ils ñoo ko distribué benn. deuxièmement ñu alerté ko ni ko document bi nga distribué baaxul ni premier ministre mëno ñëw assemblée di def déclaration politique générale xam nga une fois que alerté nga premier ministre ni ko amoo droit sur la base de ce faux di jakarlo ak ñun. Hmm. léegi mayuñu leen choix les députés de oui que ñu ne ginnaaw premier ministre bi forcé na ba ñëw déclaré qui def déclara euh, kii euh, profito ni on va jouer un jeu bi ñu bëgg jàppoon ni xëy na waa Benno Bokk yaa waa kii nu euh, majorité bi xam nga xëy na ni mën am une majorité pour daaneel premier ministre parce que nee nañ ko waroo woon a ñëw assemblée parce que document bi dafa faux mais ginnaaw imposé nga ñu ko ñu utiliser les mêmes armes yi nga andal. Qu'est-ce en sachant bien que avons une chance pour nous pour nous, pour nous, mais ce qui est encore une fois important nous nit ñi war ko comprendre ñu le président na dem defi déclaration Nous nañu comprendre ni le délai de trois mois existe Et délai bobu amul té Ousmane Sonko une fois que dem na assemblée sur la base de coutume c'est très dangereux pour la République parce qu'à partir de ce moment day jurisprudence comme la loi de euh, conscience faut envoyé à beaucoup de lois organiques conseil constitutionnel nous saisiré cour suprême nous ñu organiser supposé, on peut créer à coutume quand bien même loolu pas le règlement intérieur dans une fois que nangu nañ ni on peut même sans texte appliquer bonne pratique qui viole la constitution donc le la loi organique ndax ak importance bi mu am bu ñu ko ci domaine bi suba mën na jàll ci finance sur la loi de finance mën na sur la loi organique sur le conseil constitutionnel mën na jàll fenen, jàll fenen, jàll feneen loolu mooy danger bi xam nga tey ñëpp dañ waroon wax ni président de la république opposant yi di agité wu naan ko demal assemblée euh, da nga ragal yeen da ngeen a dara le débat sur la motion de censure Abdou Mbow moo il y a de cela plusieurs... Euh, dès, le Quelques début. semaines, oui. c'était en référence à ça, la déclaration politique générale. Donc, nous bingo évoqué Yagna, Mais quoi qu'il en soit, le plus important, moi, l'argumentaire. Man, je respecte la légalité et la séparation du pouvoir. Disons les articles pertinents du règlement intérieur qui concernent le Premier ministre, Ousmane Sonkowa tant que delloosiwu leen ko du ma assemblée di fa def déclaration. loolu mooy li jëw wax tay allez-y Issa Tine ko Amadou mam Diop ak le président de la République Bassirou Diomaye fay daje nañu. après lolu yëpp xamone nañ né c'est du faux ñu bayyi quelques mois après ngeen doog diko ko diko euh, agiter est-ce que ñi wax que ni da ngeen di daw motion de censure buñ ko tegee. Euh, député yi def ben link entre ñom parce que gis nañu wa benn bokk yaakaar am nañ 82 amna na yeneen député yoo xam ne yéen a xamuguñu fan la ñuy ak yoy noonu bu défé motion de censure même bu fekkante ne dañuy indiwaat le poste de le même premier ministre ça sera au niveau international ñu né premier premier ministre au Sénégal buñu ñu ci motion de censure est-ce que nous loolu oui est-ce que du dilatoire finalement Amadou Ba mom ngeen di def jappandu ci un vide juridique encore une fois mënuñu def motion de censure mënul nekk mënul nekk pourquoi mon nekk. Amadou fan nga teg ne waa Benno def motion de censure contre motion de censure. Qui euh, bi nu mu tudd de bi moo prévoir wax ko mais condition d'application yi. ci règlement intérieur bi la ne. te règlement intérieur boobu les lu conseil premiers. ministre. sont abrogés. Les sur quelle base lañ koy signer yow les. Les sur quelle base ngeen ni appliquer motion de censure bi alors que texte bi sous bëgg sukkandiku dañ ni sont abrogés toutes les dispositions relatives à la motion de censure, à la déclaration de politique générale et à la question de confiance. Sur quelle base la collègues defoon ci base lañ koy appliqué. non, ko doon lañ ko doon bu conseil constitutionnel de ce que je veux te dire. finalement dilatoire lay doon Amadou Ba. a pas de risque. encore une fois. Il n'y a pas de risque. la motion de censure. Hmm. effet illusoire la am. Hmm. existe amul effet. ak benn utilité amu parce que y a les premier ministre one shot là, une benn session. une yoon nga qui utiliser motion de censure effet bi moy bis bo boo daanelee gouvernement bi le lendemain le président mën na ko falaat effet bi jeex donc il y' a pas de. mais Richard-Tin wax moy moy lol day dugg ci soir que ni c'est le euh, Ousmane Sonko moy prémisse bi njëkk daanel ci motion de censure l'opposition va euh, survivre aussi. non non hein? non da nga fee fekk Mamadou Dia ah, yaa ngi Mamadou Dia. dang nga fek fekk Mamadou Dia gis nañ fi mu terminé. da nga fee fekk un régime boo xam moom moo am. majorité mais ku a une majorité y a sax super majorité parce que il mais. nous on la c'est cette majorité on est sûr de rien avec cette majorité. nous mm-hmm. on la majorité. Mm-hmm. mais c'est normal c'est presque normal. mais Amadou am na lu là euh, euh, à la suite de la question de Issa Tine. vous mm-hmm. bu connaître ni ko Abdou euh, parce qu'on est en train de dire que ce débat n'est pas important mais pour moi c'est un débat grave vraiment. sous su ñoom Abdou Mbow qui une motion de censure contre le gouvernement de Ousmane que nous le gouvernement day hmm? député mhm. mais est-ce que euh, Ousmane Sonko vous avez dit ne parce que premier ministre. conseil constitutionnel encore. conseil constitutionnel bu dit lim vous mhm. dispositions du règlement intérieur. avant avant avant parce que c'est très grave. une fois que accepté très grave. que la constitution renvoie à une loi organique jox ko article tuddee ko tu ci constitution bi mu tudd loi organique relative au règlement intérieur de l'Assemblée wax lan moy règlement intérieur lan mo ci wara né ne mu wax ko ba paré constitution bi wax ko yow nga ñew ni règlement intérieur limu dindi won nañ leen ko indi par coutume est-ce que on peut faire une motion de censure sans texte texte constitution bi amna mais constitution d'aller renvoi renvoyer tey constitution dana le de saisir conseil dès délai 3 mois bi maa jox par exemple. nekkul ci constitution nekk ci constitution bi. boo ñëwee ci motion de censure éventuellement di nga trouver l'essentiel hmm. sur quelle base xam nga booy def les visas visa wu dara da ngay bind tous les articles ak textes yi nga xam ni ci moom ngay sukkandiku yow lan nga mën a motion de censure nga fàtte le règlement intérieur bu ñu conformément à la constitution et au règlement intérieur et bon beaucoup de tëbalee sa bopp lan donc Pape Sané a raison bu ne ce qu'on va retenir li ñu va retenir ci débat bi 2021 ou 2022 ba mais Réumi, république la il fonctionner dans l'illégalité mais parce que ñi nga am prémisse boo xam ne assemblée nationale reconnaître ko c'est ça le problème en réalité Le gën Le installez a hein? installé wuñu buur buur moo fi la haute cour de justice oui moi, je juger les ministres avec le président. Mhm. mais les membres. vous avez dañ délai. Vous les membres juger conseil constitutionnel euh, conseil bi wax na de justice mais assemblée nationale moi leen nommer Kanakan, député parce que haute cour de justice tribunal la bo ministre juger haute cour autre cour tey jii ñoom ñi kuñ ci jàppoon ku détournement ci ministère mëno ko juge comme li xewon temps Idrissa Seck mëno juge tay benn ministre u Macky Sall ak Macky Sall lui-même parce que installé wuñu euh les les qui légui ñun tay hein. gouvernement est-ce que gouvernement bi mëna jog ni eh sama député bi diw ak diw ak diw kay leen ngeen nek kii bi ngeen nek les membres du de la haute cour de justice hmm. xam nga boba luñ koy wax règlement intérieur hmm. installé guñ leen ndax jox ñu ñu délai kon installé guñ leen